asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi deux janvier 2020 ñëw kin ci yëglikaay yi moo xam sunu làmb la moo xam yëglikaay bii nga xam ne moo di record la bu dee yëglekaay bii di sunu làmb nag moom dafa xëy ñëw wan ñu Modou Lo mu nga xam ne daal mu nga yor ab kaanam solub kabam di fecc yëglekaay bi ne day Modou li leer ba leer nag dellu siwaat na ci réew mi nga xam ne nii moom la ñu nekk li leer ba leer nag mooy contrat moom maanaam lam ci jublu fi mu nekk nii daal wala boog jublu na ca ngir fas koy ne nag xaatim jamono nag mu mel ni ki nga xam ne nii moom mooy wili ma nga xam ne moo doon continuer combat ba di doomi lig Nicolas moom licence am ba nañ ne daal wala xeex na boog ba jot ca yëglekaay bi di sunu làmb Lo itam mu mel ni moom licence am dana ki nga xam ne nii moom mooy Ama Baldé yëglikaay bi xëy tey ñëw wax ñu ko waaye jàkkaarloo ba ñu waroon amal nag le 4 février moom loola moom desa dàq nañ ko dootul am ca date ba nga xam ne ca la ñu ko jàppoon sunu làmb xëy ñëw tey dinu wax lool ci boobu combat waaye ba tey yëglikaay bi sorewul combat boobu ndax nag li leer ba leer daal que Modou war a bëreel muy Ama Baldé sunu làmb nu ko wan ci aw photo wu leer nañ Ama nag ci kaw autour APS bi ci benn kon ci benn scooter boo xam ne daal mu nga ca ginnaaw ñu supporté ko moo tax yëglikaay bi ne lii moom est wóor na na ci contrat bu toll nii yëg ci scooter na ci autoroute APS bi yëglikaay bi di suñu làmb nag moo xëy ñëw wan ñu lu mel ni ki noonu leneen loo xam ne tamit dañ koy wax mu mel ni du sori mbir moomu muy mesure yi nga xam ne CNC bi jiite lamb ji da koo jël ci kani mbër wala boog promoteur bu mu doon balaa ngay ñëwati wala boog boo jàppate ab date moom da indaale sa caution di ab xaalis boo ko indee nag bu date ba jotee boo tëggee yow ñu jox la sa xaalis loolu nag daa mel ni moom ñi nga xam ne ñoo jiite amateurs yi moom gis-gis yañ am dafa waroo du jànjeek ko moom dafa mel ni loola moom àndu ca d'accord jaa jàpp ne daal loolu moom moom daal moom dudu moom gisawut noonu wala boog àndut ci loolu nga xam ne moom la ñu bëgg nga def wala keneen koo xam ne tamit gis na ca beneen gis-gis muy Amadou mbay tamit jiite les amateurs moom itam daa mel ni daal mook dut jaañ bokkuñu gis-gis ca mbir mooma Amadou mbay moom beneen façon la gisa mbir ma waaye leneen loo xam ne tamit soriwu ko ba tey rek moo tax yëglikaay bi laaj dana est-ce que sax kon jàkkaarloo bi waroon am ci diggante Papa Sow ak Siteu est-ce que am ndax nag loolu moom bu amee ah est-ce que jàkkaarloo ba du xaar kon yëgli yëglikaay bi xëy ñëw tey ba tey di samp boobu laaj di ko laaj waaye ba tey combat booba moom ci diggante Papa Sow ak Siteu duñ ko sori ndax Papa Sow ma nga xam ne nag moom lañ dàqe faas mu fas yéene sañ cub écrit moom daa mel ni dem nga muy dem tey mu ngay mbaalale yeneen jën ca géej di leen yóbbaale ci écrit ba nga xam ne ca la jëm ka ca jëkk wala kañ ca gis tey moom mooy explosé ñu xam ko mu nekk écrit face moom daal daa mel ni daal ànd na ak Papa Sow fas yéene bokk moom écrit ñu ne waral loolu mu ne lenn doo nga ko waral dama di espoir ba tey maa ngi ca làmb ji di bëre nekk écrit ndam lu rëy ci laa jóge bu yàggul sama diggante ak général Diouf mais daa mel ni écrit daal dañ maa ju desee jox gëdd moo tax nag ma bëgg a dem ànd ak sama mag Papa Sow leneen la ca a moom mooy explosé la ci yëglikaay bi nga xam ne nii moom moo di sunu làmb leneen loo xam ne tamit dañ cay wax ca biir parcelle googee mu mel ni ki Franc moom li leer ba leer day bërki dem nañ nag dem na fekk ji waa dóor wala boog waa e-, waa écrit ba nga xam ne ci la bokk muy parcelle mbooloo mardi bi passé entraîné noo ak ñoom waaye ki nga xam ne nii nag moom mooy paasañ daal leeral na lu leer na na li leer ba leer daal du Franc moom moo leen di wax ñoom yan la ñuy dox déedéet moom la bi mbër la waaye du moom moo leen yoo xam ne dañ dox wala leneen loolu moom moo ko wax leneen loo xam ne tamit gis nañ ko mu mel ni ki fi mu nekk nii daal arène nationale gi seer ga mu seer yëglikaay bi ba leer moo tax promoteur yi nag ñu ngay waaxu wutali Bargny mu mel ni ki la ñu bëgg a jël bóor ne na li leer ba leer day Burxaan Wade may doon booy Niang di ko menacé nag De Gaulle nangu na li nga xam ne mooy licence ba ca moom Bourkhane Wade daal nekkatul menaceur Boy Niang yëglikaay bi record moo xëy ñëw di ñu ko waxal ci gëstoob ka nga xam ne moo di Abu Ndour beneen gëstu boo xam ne Abu def na ko ci yëglikaay bi mooy daal wàllum lambi simple bi Serigne Ndiaye numéro 2 Cheikh Tidiane Niang général Malick ak Gaskel Diame mu mel ni ñii fi nekk nii moom pause la ñu jël ca bëree ñu daan def la ko commencé le 29 décembre ba tey li nga xam ne nii mooy li wax ca li simple ba muy lu njëkk ci histoire lamb fa la nga xam ne mooy ca ñaaxar ñetti million lañ fa fas yéenee teg yëglikaay bi di record moo xëy ñëw tey diñu wax lu mel ni ki noonu waaye fan koy tëje mooy sunu lamb ca xëtam mu mujj li leer ba leer daal bombardier ñett ñi nga xam ne bëri na ak ñoom ku ne am ci moom 1-0 ñu ngi nii taxaw yëglikaay bi ne kon bombardier ndax jotul ngir mu jëli rawaasam yooyu bu dee ama seen la def na bombardier 1-0 Tapha Tine def ko 1-0 Gris def ko 1-0 moo tax yëglikaay bi ndax est-ce que du ñii amut ci kum war a jël ngir fas yéenee nag fayu waaye li leer ba leer day xam naa ne ñoom ñoo ñu lim ñoom ñii moo xam giri la Bombardier la tafaatin la wala Eumeu Sène yaakaar naa ko yoroon say carte jaxase leen bañ jaxasoo nga boole leen ñu bëri dana neex ndax Gris Bordeaux tafaatin neex na tafaatin Eumeu seen dara dàqu ko waaye Gris Bordeaux Bombardier itam mën naa saf ak leneen ak leneen waaye Bombardier ak tafaa itam bu ñu ravancé yàgg maar yaakaar na dana mel ni njar ndéem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 Amin Babacar ñoo na ak sunu lamb sunu lamb moom dañu euh, ginnaaw bu Modou Lo ñëwee yibisee jóge États-Unis nee ñu nag léegi mu signé contrat bi diggante moom ak wii Wili euh, te nee nañu aussi ñoom ñaar yëpp muy muy Modou Lo muy Ama de ñoom ñëpp renouvelé nañu seen licence dem ci CNG Babacar waaw loolu am na solo yaakaar naa ne bu ñibbisee moom defe naa ne kon la ma la la lañ daan wax la ñuy wax rek ça veut dire que kon combat bi fi mu nekk nii moom ah ku xalaatoon ne du am moom daa mel ni bu yeboo nga xaddi te xam yaakaar nañ ne combat bi dina am ak lii nii Modou na ah, ama mu ngi si dëkk bi lii am na licence am yaa ngi kon li des mooy signé yeneen contrat yi dëggal ko pour que combat bi nag ñuy xaar date ba waaw ko fekkete tal ko comme la Youssou wax nag daa mel ni fi mu nekk nii ñaari mbir yi moo leen di xaar gàddu illéer rek jublu ci mbay mi moo ci des fi mu nekk nii nag waaw tool bi moom moo di le 26 juillet entre Moodu ak Ama ñu bay ñu xool nag kan la mbooyam di bay buñ ca yeggee. journal tamit euh, euh, dafa mel dafay fellu ki nga xam ne mooy Leewtoo point net parce que nee nañu jàkkaarloo bu ñu doon am bu ñu doon amal le 4 février euh, mardi incha allah du am Babacar nee ñu nag mesure CNG yi mu yi mu jël moo tax face à face boobu ñu reporté ko. waaw suñu la mu ñëwaat ci loolu tey loo xam ne nii que ni face à bi reporté nañ ko ah li am solo nag mooy. Euh, bu fekkente ne face à face moom li ñu wax tey ne ay ndogal la yu ni balaa kenn defati face à face da ngay génne temps joxe ko soo tëggee ñu delloo la boo tëggul ñàkk sa xaalis loolu nag su amee kon il faut que ñu dem CNG def avenant yeeg yooyu pour ñu signer yooyu pour que seen euh, euh, signature bi maanaam wala bi kon yaakaar naa loolu bu ñu ko dàqee itam ah xëy na lu mel noonu moo tax ñu war ko dàq mais li am solo daal mooy seen face moom xam naa ne xaw ma fu ñu koy defee ci réew mi waaye yàlla nañ ko fekkete tal ko waaye seen premier jàkkaarloo moom dana waaw xam naa nar na nekk lu neex a neex daal. est-ce waaw waaw war na mën a nekk de man de bëgg naa ko fa wéli daal bu ko neexee man mën naa ko dalal sama dëkk man waaw waaw ci turu sama meer maître Pape Sène ñu defal ñu ko ak yaay ndax moo doog ama moom ci luy baax la roq bu sedd du ko am tàng jër lay def. waaw euh, si mbirum face à yooyu sax la des ba léegi ndax ñaari président yi ki nga xam ne mooy Doudou Diagne Diecko président des amateurs de lutte ak ki nga xam ne mooy Doudou euh, nga xam ne mooy Amadou Mbaye euh, président des des amateurs authentiques de lutte aussi ñoom ñëpp wax nañu si mbirum mesures yooyu nga xam ne moom la CNG jël ki nga xam ne mooy Doudou Diagne Diecko moom nee na CNG mesures yi mu jël tegu ko fenn ndax il tamit ñoom ñu jàppale promoteur ndax promoteur dañoo sonn te aussi nañu def tout pour nga xam ne tëgg làmb pour amateurs yi mën a ki nga xam ne mooy Amadou Lima président des amateurs authentiques moom lu mu gis nee na CNG mesures yooyu mu jël mesures yu baax la parce que tamit il faut tamit ñu protéger face yi. maanaam Amadou Mbaye moom du jaañ ku ci ne da ngaa xëy wax gis-gis yi waroo wute bëgg-bëgg nag mooy tax marchandise yi jar loolu la olof yiy wax li am solo nag mooy CNG bu jëlee ay mesure am comme ni ñu ko waxee sànq ci wàllu caution yeeg yooyu du jan jàpp ne loolu moom dafa diis wala waree su ko defe noonu parce que promoteur dañu a yi a jàppale parce que promoteur yi bu dul ñoom làmb du am parce que ñoom ñooy bayeeru làmb ji yaa ngi dégg parce que tamit ki nga xam ne nii mooy investir xaalisam si dara yaakaar naa ne itam waras na ko mën a jàppale gunge ko ba mu am fit pour man di réussir la muy dugg waaye nag lu ñu leen jàppale itam du tere des na teg ay yoon yoo xam ne nii pour man mooy tax mbir mi am organisation ba du nekk anarchie pour ñu teg ko ci aw yoon mais ci kaw loolu itam nañ fexe ba mu nekk lu nga xam ne du gaañ kenn parce que man dama yaakaar ne docteur Alioune Sarr rek équipe am ci si ma jàpp man Babacar bu ma sama xel naxul pour man a toog pour loolu laa jàpp Amadou Mbaye tamit la mu wax xel mën na koo nangu que ni mbir yi nañ ko organiser mooy li mu waxoon sànq rek kon yaakaar naa muy dut jaañ muy jéeg euh, di Amadou Amadou Mbaye ku ci ne pour man seen ay wax sorentewul pour ñoom duñu bëgg tax mbir yi jëm ca kanam lépp nag lu mu doon nañ ko lal waxtaan rek nañ ko laal ci waxtaan parce que promoteurs yi tolluwuñu niveau parce que ki mën a organiser Modou Lo Ama ak ki mën a organiser Balla Gaye ak ki nga xam ne mooy Tapha Tine wala Balla Gaye euh, nga xam ne nii moom mooy combat wu ki nga xam ne nii moom mooy Thiatou Nguéweul ak ki nga xam ne nii moom mooy Fils de Zallo combat niveau tolluwul ay kase kon yaakaar naa nañu waxtaan pour que mbir ñu mën ko améliorer daal keneen ki nga xam ne moo Euh, di di xël-xël yu metti si si autour à péage bi nag mooy lu yéeme Babacar lu am lu ku war a am combat royal war a bëreeg Modou Lo di yegg si scooter loolu la Ama Baldé def euh, di dem si autour à péage bi. waaw muy foto woo xam ne ñun nag ñu ci sunu làmb lañ ko fekk mais li am solo daal mooy. ah euh, xamuñu lan yan yan circonstance ko tax a yeeg ci scooter am xamuñu parce que nag moom moo xam moom Ama ak la ko tax a yéeg scooter waaye ñun mën nañu wax en tant que ñuy jàngat ci cadre sport parce que Ama yaakaar naa tey personnalité la si làmb donte xale la si at mais yaakaar naa làmb tey am na ci cër ndax am ci cër moo tax bi mu ci ñëwee 2010 tey 2020 si kàttanu yàlla mu nar a jongante couronne royale loolu ku deful dara doo ko def te ku ñu ku liggéeyul tamit doo fa comme liggéey na ba yegg si yaakaar naa mën nañ ko wax wax ko ay morom wax ko ñëpp que ni ah yenn yi moom jar na invité di ko moytu parce que euh, waaw dañ ne am na lu ko olof yi léebe daal li am solo mooy euh, am na yoo xam ne nii moom professionnel la tey ci lu muy def mbër la bi nga xam ne mbër bu mag la nekkatul mbër bu mag te la ma la ko yàlla boole a na indi ay jafe-jafe ci biir làmb ji ndax ñaanaluñ ko kenn ah, parce buñ sa ñëppay am jàmm ñëppay wér man loolu loolu laay wax chaque jour mais nag fexe ba daal bu ñu la joxee avance ngay sàmm sa bopp sàmmaleel promoteur ba avance bi daf ci am solo pour bés ba boo ci yeggee ah nga mën a bëre mais nag des fois itam dogal yàlla da koy indi ci ab jaam loolu bu ñuy bu kerogee dañuy gëm ne dogal la daal mais li am solo daal mooy kani ama na gën a xoolaat bu baax a baax taxawaay bi te defe naa ñi ko wër tamit duñ ko bàyyi ci noo xam ne nii nu ko neex la ndax ku la encadré 2010 2020 ngay jógoon teg couronne royale moom kon fi ñu war a teg teg nañ la fa. Babacar ki nga xam ne mooy explosé dem na fekki euh, Papa Sow mi nga xam ne day waaye créer écurie te AG bi mu nekk dimanche explosé nag fekk na xeetam Papa Sow euh, Babacar. waa loolu de am na solo li ci am solo mooy que ni moom écurie Fass la nekkoon explosé di fa bëre Papa Sow tey daax nañ ko Fass muy créer écurie moom mu ne parcelle la dëkk kon da koy fekki te itam jàpp na ne écurie Fass des nañ ko jox gëddaam ah olof yi nag dañu am lu ñuy wax rek. Euh, pata sama gënal ñam bi kuñ ci duma moom ka layal xëy na moom moo baaxul bokk wala ñëpp ko doole waaye ku ne am nga droit choisir la la nga na nga choisir la nga nga tànn nag yàlla na nekk lu gën lool la ñuy ñaan l'essentiel que Papa Sow tey mu ngay sañ ceekirim explosé bu gisee na foofaa ko gën a arrangé am na droit dem fa ànd ak moom liggéey parce que loolu du dara écurie Fass tamit ak beneen écurie bu mën a doon ku ne continuer ca nga nekkoon rek mais l'essentiel que li am solo rafet dox ci seen ay loolu mu ëpp solo daal keneen ñi nga xam ni euh, si ñoo xam ne seen diggante rafetul tul muy diggante xam ak waa école de lutte euh, de Gaulle moom nag nee ñu Bourkham nekkoo manager bu Boy Niang delloo waa kër Boy Niang laaj nañ ko décence ba delluwaat na lañ ko Babacar. ah waa lool day moom mu <laughs> yaakaar naa ne daal suñ ko déggee itam du doon lu nga xam ne nii lu ñuy neex lay doon parce li tax mooy kani bu ñu sañoon diggante yenn yi su su bu yeggee ay diggante yoo xam ay ati ati at la wax dëgg yàlla. wares na ko man di xoolaat balaa mu yàqu ci benn jour wala nangam sangam parce que tamit Burkhane defe naa ba booy ñang ne càpp ci làmb di bëree moom lañ xam ak moom mu koy encadré lii nag mooy deuxième fois bi parce que amoon na fi ñoom ñaar nit ñuy wax ba après mbir ma jaaraat ci yoon ba tey ah xaw ma nag lan moo indi mu ñu nangu licence bi wala nangam sangam waaye xam naa daal ci li ñu mën a xam mooy Bourkhane Wade mënadsel bi nga xam ne nii mënadsel ci biir mënadsel yi ndax intelligence am ak tamit taxaw athlète am Boy Niang tamit yaakaar naa ne pour man nekk na mbër bi nga xam ne nii tam mbër bu neex encadré la mais li am solo daal mooy bu fekkente ne ànd gën ci ñoom nañu jëm waxtaan ànd bu ñu jàppee tamit ne ànd ba amatul kenn ku nekk njëriñ ci sa parti ku ne mën ngaa dem ci la nga yaakaar parce que yàlla buur bi tamit Ndeye Coumba Fall ñëpp la fi nekkal Babacar nag journal bi aussi mi ngi ñu xanaa euh, comme nga nu euh, VIP làmb bëri doon nu mu amee noonu amee ay VIP sur le simple bi nee nañu nag euh, ki nga xam ne mooy Serigne Ndiaye Cheikh Cheikh Niang général Malika Gaskel ba Singel John ñoom ñëpp. ñëwatuñu daal si galaadu lu ji depuis bu Franc ñëwee teg tànk daal Sénégal ba léegi ñoom daal kenn gis leen dinañoo ne mër kenn gisatu si galaa yi Babacar ah bu dee looloo tax ñu ne mër de moom dinañ gën di mër ndax xam naa ne Franc moom mu ngi ci lam ji te day bëri te fa su ko yéenee bàyyeeg ñoom te loolu mu wax nag ab jàngat la lu jara bàyyi xel la ndax laataa Franc di ñëw ñi ñu fi lim ñëpp muy Serigne Ndiaye Cheikh Tidiane Niang Ngel John général Malick ñoom ñëpp a ngi doon wàcc waaye su ma bu dee Cheikh Tidiane la ba ngeen ba ba franc wàccee lañ ko mujj a gis yaakaar naa suma jumle mu daan ko final ci 10 millions yi Serigne Ndiaye moom mu kera franc ko éliminé ca quart de finale ya mu mel ni ki daal kon ñoom bu fekkee franc tax ngeen dugg ruq dey ah xalaat naa bu ngeen boo gën a tëj seen i porte ndax franc mi non daa fu mu jëm franc di gune bëgg li ñu bëgg tey li am solo moom mooy tournoi yi mu participé yëpp gagné na ko moom franc ah, ba mu ñibbisee ba tey ah loolu nag du dara lu dul liggéey dong waaw du leen lu dul liggéey ngel jon nag yow ak Cheikh Tidiane ak Gaskel ak Serigne Ndiaye ah bu dee mënu ngeena a daan Franc ci làmb ciy galaa kon dina métti ci yéen ndax Franc mii ma gis de daa nar di lëmbe de ndax ñëw na mbuur jaxase ko waaw 10 millions yi mu jaxase ko arène na ah laa ilaaha illallaah Franc rek acca mu ngoog Babacar nu jeexale nag ak Leewtoo point net Leewtoo point net moom li ñuy xamal ki nga xam ne mooy Boubacar Niang suba dina def batam dafa muy euh, combat bu njëkk suñu confrère boobu nekk suñu lamb dina tax euh, dina tëgg combat diggante euh, fils de Zal ak ki nga xam ni mooy caatu ngéwél Babacar. fils de Zallo doomu Zallo ak caatu ngéwél ca yoof ak Boubacar ñaar borom ama event suba ca arène national ñu koy ñaanal yàlla duggam bu bees boobu yàlla na dugg ak bismillah rahmaani rahim génn alhamdulilah rabbil alamin ba bu ci jógee sax mën a taxawalaat yeneen combat yu ëpp niveau yooyu parce que nag dañ ne borom bintu ko mbagg boo xar xol ba magasin nga cay fekk bu rëy mu taaju la koy dimbali nag mooy mu gëm ko rek jàpp bañ a bàyyi ndax xëcc buy daggul moom day dikk te la papa coon waxoon rek wërsëg buy ñëw ceenu bato bu mu fàllee koy ñoddi muy ñëw ku xam bu mu fàlle muy bu mu wëttéen laal mu dagg laalul mu dagg la mooy xëcc wërsëg buy dem itam nag ceen ya ñuy yeewee bato yee ca port ba mënu ko wuti kon li am solo mooy looy def rek gëm ko kon Boubacar daal ñu ngi ko ñaanal yàlla suba mu réussir làmbam jooju en 100 pour cent waaw Babacar nag sa kàddu yoon leen tàggoor leen jox dig daje leen di incha allah mais balaa ba muy nuyu suñu yaay Merso nuyu sama doom Mohamed Diouf di nuyu Astan ne DG Prama chéri Khadija Diallo euh, depuis Italie di nuyu Asek aussi depuis Italie ki nga xam ne mooy Abdou Gaye Baye Fallou jàmmagal euh, papa yi depuis États-Unis maa ngi koy nuyu di ko jox wàccuwaayam nuyu ki nga xam ne aussi mooy Ramos Ndiaye naan ko merci teranga bi bëri na lool Babacar waaw waaw waaw Ramos ñu koy nuyu di ko siyaar di ko ñaanal jàmm ah, depuis Italie di nuyu ñëpp ñuy suivre moo xam ñu ne Italie Afrique du Sud Norvège Côte d'Ivoire Arabie Saoudite États-Unis d'Amérique ñoom ñëpp nuyu nañ leen mais Ramos nag ah macha allah teraanga moom wax dëgg yàlla ku la ko lebal rek. boo goree war nga ko koo fay ñu nag li ñu mën mooy ñaanal la yàlla yàlla na la yàlla defal jàmm defal ko bépp doomu aadama li am solo nag mooy ma la koy wax di ko wax sama bopp di ko wax yàgg mi di ko ñu ñuy suivre li aay mooy nit defal la teraanga nga lal sa basang maa ko yeyoo loolu erreur gënu koo la tax nit ki defal la teraanga danga koy jéem a xam nga rendraat ko mbir ma yaa ngi dégg nit ki bu la jàppee te yàlla tax jàpp ko te yàlla tax bu lay dimbali te yàlla tax dee ko dimbali ca yàlla tax dimbali nag ci façon bu ne la nit di nga ko dimbali ci kàddu di ko dimbali ci sa doole dinga ko dimbali ci sa alal di nga ko dimbali ci yëpp kon daal loolu laay wax di la ko wax di ko wax sama bopp di ko wax yàgg di ko wax ñu ñuy suivre teraanga moom des na la ko defal nga jëkk gàtt xel texit ni Babacar ne maa ko yeyoo jaaxaan jàpp sa bopp di naan sa njara di nuyu ñuy suivre di ñaanal ñëpp jàmm di wax que ni Sénégal yal na fi yàlla def jàmm mais di wax tamit mention spéciale sama maire maître Pape Sène ci commune Ndondol mais rawatina village bu ma dëkk di ak yaay indi nga fa ndox indi nga fa courant defar nga ñu hôpital ak yeneen ak yeneen ak yeneen kon yow kenn amul sa fay man ah maag yow moom ba géej gi fer politique gu ma nag dafa fekk ne yàgg maar yàlla na nga am jàmm ndey Kumba Fall mais cote su jabon ma jox weeri sa série bi maa ngi lay nuyu sa yëf ma delloo la sa yëf bi ma sama téléphone bi ba wóor na feebar dafa bëri <laughs> non dara ñun dunu ay sénégalais lañu yooyu feebar moom ay sinwaa lay dal ñun loolu yàlla nañ yàlla ko bu yàgg ak dëkku maam alaaji Malick maam limaamu Cheikh Ahmadou Bamba maam bu kunta ak waa jàngo bi ne fi yàmm rek la ñuy am bu soobee yàlla xanaa kay wax ñuy rayee ñu bàyyi rayee bi te yàlla rek tax dimbali nu yàlla na ñëpp am jàmm ndey ko ba leen incha <laughs>